السلام عليكم ورحمة الله بكي نيو لي نيو دي لان لان بالو حق نيان سبحانه وتعالى مولي ني حديث تايبي دا فاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم يرن بي صلى الله عليه وسلم من اللي بيك الجنة تي حديث بي من اللي بيك الجنة موي ييغا خامني موم لا بكن bañ mu ne li peeg safara mooy yi nga xam ne bànneex yi nga xam ne moom la bakken bëgg mooy banneexu bakken xadis bi mu ngi ci euh, saxiihul muslim muslim moo ko solo euh, dégg-dégg bu gàtt biñ ci am rek te mu ñi di ko jàngal yonent bi sallallahu alayhi ko jàngal mooy ku bëgg a dem aljanna dangay ngay jéema def li nga xam ne moom la bakken bañ maanaam del wuuteeg bakkan yoonu aljanna mu ngi nekk ci wuuteeg bànneexu bakkan mu ngi nekk ci wuuteeg bakken maanaam lépp lu mu bañ rek xamal ni looloo li gën ci yan ci yow boo saxee di def loolu rek yàlla danga dana dugal aljanna ndax moo lay xiir ci def lu baax mooy tax nga moytu di nga xam ne moom la yàlla tere mu ne léppeeg safara it mooy bànneexu bakken yi nga xam ne moom la bakken bëgg bu ko defee bànneex yooyu nga xam ni moom la bëgg boo ko may too ba defoo ko rek yow safara sa loolu mooy doon sag barrage sa digganteek safara ba doo dugg safara kon ci gàttal rek bu ñu bëggee dugg aljanna yàlla boole ñu ci yàlla ñu ci yàlla boole ak jullit yëpp toujours nañu wuuteeg bakkan xeex ak moom ndax nelaw la bëgg ak lekk ak naan ak noos ak yàq yaram lépp luy yàq yaram ak luy yàq xel ba kenn loolu rek lay xiin nit ki boo góorgóorloo nag ba xañ ko yooyu rek da nga jegeeg borom bi ndax boobaa ruux bi day dund te ruux bu dundee ci nit ki xol bi daldi di mooy alimenté xol bi mooy dem ba alimenté jëmm ji ba lépp yàlla lay doon buy dox ak buy wax ak bu lépp lu muy def nga góorgóorlu it ba li nga xamante ni mooy bànneex yi nga maytu ko maytu ko loo ca man sa kem kattan incha allah ñaari bu ci jullit bi saxee du jege safara te dana bokk ci ñuy dugg aljanna yan nañu ko yàlla defal qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa